lépp mbàkke la ak mbuso bi waaye dana doy sëkkit ñu wax ne mooy ki gën ci nit ñi mën nañoo wax ne bokk na ci ñi gën ci nit ñi te loola ba yonent bi waxee na xayru naasi anfaahum li naasi yonent bi daa waxoon ne ki ki gën ci nit ñi mooy ki ëppal njëriñ nit ñi su kon na xam ne ne ku am njariñ la ci nit ñi ci defar seeni ru waaye yar seeni bakkan waaye dimbale leen ci wërsëgam te loolu nag mbokk yi dafa am solo lool ndax li kulli insaanin fil xayaati risaalatan yajibu alayhi an yu addiyaa doomu aadama bu nekk rek ci dund gi am na benn message boo xam ne war na ci yow nga joxe ko sa loolu moom ñu ngi koy joxe bu baax ci fànn yépp waaye nekk nit ku bari yërmaande ci nit ñi nekk koo xam ne ku yéwénal la ndax gis nañ taxawaayam ci yoon wi ci defar gi muy defar waaye nekkit ku ragal yàlla waaye ku lewet waaye nekkit ku ñëw wekk waaye nekkit ku woyof nekkit koo xam ne ku bëgg nit ñi la waaye ku leen ormaal lañu ku leen ormaal la ndax bokk yi dafay bokk ci jikko yu rafet min al xuluq al karimi an yataxababa al insaanu ila annaasi wala yufaddilu nafsuhu alayhim wa yuaasiruhum ka annahu bokk ci jikko yu rafet mooy nit ki bëgg nit ñi bañ a fab ngëneelam teg ko ci seen kaw waaye dund ak ñoom mu mel ni kenn la ci ñoom ak cir bu ko yàlla mën a jox cëg cëg màggaay te loola moom lay dund waaye nekkit koo xam ne fu mu mi ngi dugal mbégte ci xolab fuqaraaw yi ak masaakin yi ak bokk yépp di liggéey liggéey bu réy ci ñoom ci wàllu aj màkk geek di yóbbu ñu bari màkk waaye di dimbale ñu bari ci seen ci seen kër ak seen ak njaboot ci fan yi rek ñu ngi gis taxawaay bi mu xam ne taxaw na ko ci muus ma nga xam ne dafa yàquloon ka mu yàqal jàpp ko tëj ko ñu gis taxawaay ba mu ca taxaw muy taxawaay boo xam ne keroog fàttali nit ñépp abi hurayrata te muus ma nga xam ne moom la yërmaane jëm amoon ca muus ma ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam tuddee ko abi xurayrat waaye xel yépp dellu ci jeexatal waxi jeexatal ji ittaqu xaysal bi walaw fil bahaimi nga xam ne doomu aadama ab julit war naa moytandi ko merloo meram xol donte ci baaxi mi la sa fas wi ne ci kër gi ak sa mbaam mi ne ci kër gi sa muus mi ci kër gi nanga nga fexe ba na nga moytandiku seenam mer moo tax keroog taxaw na taxawaay boo xam ne bëggut mu suñu mer bëggut mu xiif bëggut mu tëdd foo xam ne fu saltale doon muy taxawaay bu ràññeeku boo xam ne yëmut ci doomu aadama yi rek waaye ba ci bàyyi loolu mbokk yi kon mooy lenn la ci jikko yi wante yaatu na yaatuwaay boo xam ne mu ne suul tudd lépp waaye loolu bokk na ci ay jikkoom yoo xam ne ci nga xam ne fu mu toll rek mi ngi bëgg a texeeg murit yi texeeg àddina ak alaaxiraa ci ñoom mi ngi joxe alalam mi ngi waxtaan nga xam ne kon mi ngi yar ab yarkatu ruu la waaye kuy defar bakkan la tamit waaye bu ñu demee mbokk yi ci baatin bi nga xam ne yàlla def na ko ci moom ci tur wi muy Abdou Samad Mbàkke baatu abdu kon a xam ne ne abdu mooy jaam ab jaam nag dafay nongu dafay tàggatu ay mbiram day nekk lu yomb xam ne moo tax abdu boo ko limee dafay nekk soixante-seize gis ngeen tigo sax tigo ci boppam rek soixante-seize la moo tax ay mbiram lépp a yomb noonu la ab jaamit noonu la am mbiram ay jàppandi waaye asamat moom it lu ñu xam la bokk na ci ñaane Sëriñ tubaay yi muy wax ne yow yàlla maa ngi lay ñaan nga dugal ma ci saatu samat kon boo adatee Abdou Samat Mbàkke daf lay jox ñaar téeméer ak fanweer ak ñett ñaar téeméer fanweer ak ñett moo jàpp huwallaahu ahad allahu samad di ñaar téeméer ak juróom ñeent fukk ak benn nga teg ci mujjib 55 teg ci ñaar ñetti xarafi samadu yi saat gi ak miim gi ak daal gi mu jox la limu 233 kon soo naa soo tuddee Abdou Samad Mbàkke yaa ngi wax huwallaahu ahad allahu samad mujjibu samadu yaa ngi wax loolu sa kon na xam ne na huwa allaahu ahad allaahu samad mooy juróomi turi yàlla yi nga xam ne moo nekk ci suuratu ixlaas muy sekkare bu mag ci joxe wërsëg waaye nga xam ne dafay yombalal kër gi dépasse nga xam ne képp ku koy liggéey doo ñàkk mu jib luy xam la samat moom it luy xam la ci li mu làmboo ci ay mbóot waaye Abdou samat Mbakke moo jàppit huwa barrun wa duudun huwa moom barrun ku baax la wa duudun kuñ sopp la huwa fukk xaraf la ak benn barrun ñaar téeméer xaraf la ak ñaar wa duudun di ñaar fukki xaraf soo ne Abdou Samad Mbakke yaa ngi naan huwa barrun wa duudun huwa moom barrun ku baax la waduutun ku sopp la moo tax képp koo xam ne yaa ngi yëg tawat ci sa yaram walla nga yëg ay xat-xat ci sa bopp wala nga yëg ak ñàkk ci sa bopp maa ngi lay laabire jëlal sa kurus nga wut limab allahu ci guro gu weex doom ba na nga nga jël jàng ci huwa barrun waduudun boo noppee nga teg ndox ci sa kanam doom bu ne doom boo jàng huwa barrun waduudun rek nga fa tafali ko ci doom bi def ko ci ndox mi soo noppee bu jeexee nga sangoo ndox mi waaye gannaaw téeméer boo def nag gannaaw lim boo def ci allahu soixante limab deux cent trente trois yi lim boo ci def boo noppee nag da ngay jàng allahu nuuru samawaat ba aaya bi jeex nga tafaliku ci gure gi tafli ko ci def ko ci ndox mi bu lim bi noppee nga sarax guri gi sa sangoo ndox mi soo ko defee bu fekkee ci yow tawat danga nga wér bu fekkee ci yow ay xat-xat wala mu fekk ci yow ak ñàkk loola dafay daal di jeex ci coobaree suñu borom waaye mbokk yi bu noppee bu ñu ko fàtte ci ñaan ñu ñaan ñaanal ko moom it yàlla yàggal ko fi dolli kàttan gi ak wir gi ndax ku na xam ne na sagab jullit ñëpp la waaye njariñal jullit ñëpp la waaye sagab murit yëpp la yàlla yàggal ko fi dolli kàttan ak wér gi wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.